bu leen ànd mais lii ñu jë jël jëmale ko ci Ousmane Sonko mais dafa salté en fait parce que booy xool c'est de l'animosité mais nag politique ah. ñëpp war nañ xam ne ne c'est la gestion des opportunités ki nga xam ne moom nga nekk bien vrai que sa adversaire la hmm. heure bu la jekkoo pour faagaagal la tamit da lay faagaagal waaw ah, mais newuñ ci jungle nag newuñ ci jungle nag parce que lii nekkatul politique rek acharnement bi ñu jëmale ci ci Ousmane Sonko teg ko ci ndoddam mais mais Omar yaa ngi ay bët mais mën nga xool bu baax li xew Sénégal dafa mel ni Sénégal lenn kenn rek moo fi nekk muy Ousmane Sonko moo fi nekk kuy porte plainte moom ngay porte plainte kuy ut dossier bu lëndëm mais yaa ngi wër looy teg Ousmane Sonko ku bëgg buzz sax ci Ousmane Sonko ngay wax Mm-hmm. kon daal jàpp nga ne actuellement Ousmane Sonko moo nekk l'homme à abattre ci loolu sax ñu gis ay accusations yi nga xam ne le député Matar Diop. Mm-hmm. nekk ci mouvance présidentielle bi yëkkati na ko di wax ne ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko rek ay lobby wala boog dafay jot ay fonds occultes yu jógee fële ca Qatar ana ban jàngat ngay def ci accusation yooyu. Euh, xam nga loolu bettul kenn accusation ñu accuser Ousmane Sonko parce que dafa boy suñu nopp euh, depuis deux mille dix-neuf la ñuy accusé woon Ousmane Sonko que dafa am ay entreprise pétrolier yu nekk ci ginnaawam 2019 ah. veille des élections veille des élections l' émission bi mu def ak Pape Alé wax na ko ci ñuy accusé Ousmane Sonko que dafa am ay entreprise pétrolier ban dem nañ ci ba lim ci tulay ooy bokk ci entreprise yoo xamante ne jàpp nañ ne day financé Ousmane Sonko Ousmane Sonko nee naa la leen rek lañ ko jiiñu Sénégal mooy ëmb na ñu xëy ne saa waay est-ce que ëmbul. Hmm. loolu rek la ñu jiñee Ousmane Sonko mais jiñ nañ ko ay force occultes jiñ nañ ko financement occulte hmm. mais le député Matar Diop ce qu'il a dit assemblée nationale la ko waxee. Hmm. loolu moo tax kaddu yi nekk ay kaddu yu nga xam ne yu sérieux la parce que su nekkoon un citoyen lambda mhm. moo génnee accusation yooyu tekku ci ndoddal Ousmane Sonko wala ñu koy dégg feneen mën na nekk du am dayo bi nga xam ne am na ko mais mhm. dañoo gis ku nga xam ne un représentant du peuple la mu taxaw fi nga xam ne mooy assemblée nationale mhm. yëkkati kàddu yooyu waaye tamit ñi nga xam ne ñooy société civile bi actuellement ñu dugg ci di laaj rek li nga xam ne mooy enquête ñu def ko si xam nga su ma doon société civile du ma faale loolu du ma lijjanti loolu man su ma doon société civile bi du ma lijjanti loolu du faale loolu parce que si on est dans une république on est de un état sérieux mënuñu mënuñu saa yu xëyee rek bu ne ku ñu yéñ ku ñu accusé xam nga li gën a garaaw mooy jàmbakatu daxaar yi. dans ce pays dafa am ay jàmbakatu daxaar. ñan ngay woowee jàmbakatu daxaar waaw daxaar yi mooy les mais les faucons ñi nga xamante ne tey jii ay businessman la lañu ñoom la ñu jël tey jii ñu toog ci tele bi di wax. xam nga xam nga dafa am loo xamante ni signe la bu flagrant bu xaw a doy waar Seydina Omar comment tu peux admettre au Sénégal dans un état sérieux on te dit que un ministre de la République bu def tweet gis ngeen ko Sénégalais gis nañ ko internet ñëpp gis nañ ko teg seen bët un ministre de la République def tweet dem leen ngeen seetaani Cheikh Yérim Seck mais on est dans un état sérieux pas ban ministre de la république moo def loolu. ah mais xam ngeen ko. mais da ngay da ngay ci. xam ngeen wax ji da nga koy ñeme. à la dimanche mais Ismaïla Madior Fall. après mu mu mu effacé ko. mais fekk na hmm. booy capturé nañ loolu. Hmm. kon ça veut que ñoom dafa am ñoo xamante ne ñoo leen di waxal. dafa am une certaine presse national comme une presse française hmm. boo xamante ne ñoom. seen objectif seen i yëngu-yëngu li ñu bëgg mooy ternir l'image de Ousmane Sonko. ci wàllum presse étrangère boobu ngay wax sax mën nañ xam ne li nga xam ne mooy bataaxal boobu. Mhm. ci presse bi mu jógee nekkul fenn fu dul ci Togal di France. absolument canard enchaîné. waay xaw ma canard enchaîné xaw ma lapin enchaîné xaw ma euh, lièvre enchaîné buñ ñu yàpp buñ ñu fonto la France est derrière ça gis nga gars yi. Mhm. Euh, ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko arrangé wul France arrangé wul. certains leaders et lobby yi nga xamante ne li ñu bëgg mooy accaparer suñu su ressource li ñu bëgg mooy duñu noot ba keroog ba keroog laa la wax dootuñu am dara parce que ñun ñuy dundal France la main d'œuvre des entreprises européennes c'est les Africains les ressources les, les, les matières premières yi nga xamante ne tey ji France mi ngi ko dundee fan la ko jëlee en Afrique ñun ñoo dese suuf ñoo dese pétrole ñoo dese zircon ñoo dese fer ñoo dese phosphate li coom ñoo ko desee kon tey ji je te dis en âme conscience que gis nga ces ces ces ces manipulations yu ñuy def pour yàq der Ousmane Sonko heureusement que askanu Sénégal gëmuñu leen la majeure partie parce que aussi mënoo singale chaque jour nga singale benn doomu aadama yaa ngi xool ma maanaam Ousmane Sonko amatul sax vie de vie vie de famille lu ñu information bu ñu jot gis nga Areta yi dem ba génne. port d'arme autorisation port d'arme bu Ousmane Sonko. dégg nga fi ay temps ñu ne dafa am ay journalistes yoo xamante ne usman Sonko da leen di orange moo nekk da leen di wave. absolument anitature yi bu amoon loolu nga yaakaar du ko génne. c'est pas vrai amuñu ko. léegi nag ñëw nañ ci mbirum Adji Sarr am ci échec. ils ont mais est-ce que am nañ échec ci mbirum ah, Adji Sarr dès l'instant li nga xam ne mooy contumace boobu ñu ko jugé woon moo tax ba Ousmane Sonko mënul dem ci li nga xam ne mooy élection. ma ne. yow yaa yow c'est sûr que moom lañ ci élection yi. ah bien sûr parce que contumace bi. dañ ne ah, ku képp ku nga xam ne dañ la daan. par contumace Ousmane Sonko mënoon dañ jugé dañ ko jugé ba ne demul élection. ah actuellement loolu dinañ ci ñëw. mais le jugement n'est pas définitif xam nga le jugement de Ousmane Sonko n'est pas définitif. absolument loolu ñëpp Ousmane Sonko ba léegi. Mhm. il conserve ses droits. parce que daanuñ ko daan bu définitif boo xamante ne mënut a bokk. te Ousmane Sonko se considère jusqu'à présent candidat à l'élection 2024. il a gagné toutes les batailles juridiques ma wax la ko tey parce que euh, Seydina Omar dañu commencé ci euh, ci dossier Adji Sarr bi. Mm-hmm. dama ne dañ ci échec. tax nga ne dañ lan lañ jiñoon Ousmane Sonko. viol et menace de mort. waaw viol avec menace de mort. port d'arme port d'arme nangam sàngam. juge bi lu mu wax dara du ci dëgg juge bi nee na viol amul menace de mort amul man fa laa yem corruption de jeunesse nag <laughs> vraiment loolu gàcce la. ñu ne ay corruption de jeunesse loo xamante ne bañ ko gisee gëjee dëgg depuis Mathusalem la lu yàgg la ñu ne deete waay ñu ñëw indi dossier Mame Mbaye Niang bàkk la ko vite fait man Ousmane Sonko rek a ne ci réew mi ñaata nit ñoo ne ci biir kaso bi ba léegi kenn attewu leen quand il s'agit de Ousmane Sonko ay il faut il faut faire vite nañu bàkk le dossier bi nañu gaaw nañu parax-paraxi pour lan pour fexe waa rek mais ni ñu kii kiiwee amuñ ci ndam mais est que jàppoo ne ci wàllum accusation yi nga xam ne le député Matar Diop teg na ko ci kaw ndodd Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko. Matar Diop ce qu'il a dit c'est grave c'est yoo xamante ni yu grave la. waaw xaalis bu jógee Qatar. Mhm. ñu dugal ko Sénégal ñu teg ko ci loxol Ousmane Sonko pour taal Sénégal. est ah. jàppoo ne waa Pastef wala boog Ousmane Sonko war nañ indi benn réplique ñoom tamit pour rek sauver li nga xam ne mooy crédibilité Ousmane Sonko parce que nekk na ko nga xam ne bëgg na dem ci li nga xam ne mooy élection présidentielle yi waaye tamit am na ñu nga xam ne dañoo nekk ci ginnaawam pour laver honneur moom Ousmane Sonko est-ce que jotul moom tamit muy attaqué ñi nga xam ne ñooy dal ci kawam notamment ki nga xam ne mooy Matar Diop mu dem ak moom ci yoon. Ousmane Sonko dafa am seen jot am na lu ko doy nu muy attaqué koo xamante ne tey jii ak xam ak yelleef dañ koo bafoué koo xamante ne tey jii dañ koo barricadé cinquante jours ci këram génnul. te amul benn notification bu jóge ci justice bi wane ne mën ko mën nañ ko barricade koo xamante ne tey jii décision de justice moo génn ne nañ ko intégré ci bi un état ki bu taxaw di défier justice ñëpp di ko gis ku ñu tëj tey jii ci biir kaso bi xañ koy ak xam ak yële mais tey jii xam nga dafa am loo xamante ne tey euh, dafa man nii comme ni ma la ko waxee sànq Ousmane Sonko rek moo nekk ci réew mi te mat le le député la Matar Diop. Mhm. ce qu'il a dit c'est grave c'est d'une extrême gravité. absolument accusation yu graaw la. parce que ñun ñëpp mais pouvoir opposition journaliste nangam Sénégal lañu am am amuñu leneen lu Sénégal amuñu lu ko ëpp. Mhm. am nañu opportunité génn réew mi dañ ko fee bàyyi toog fii pour xeexal Sénégal kon ce qu'il a dit. c'est d'une extrême gravité Omar parce que le député Matar Diop a dit dafa am financement yoo xamante ne dafa jugee Qatar ñu teg ko ci loxal Ousmane Sonko pour lan pour créer la kaw mm-hmm. waaye tamit suñ demee ba toog rek ñu mën a négocier waat li nga xam ne mooy contrat pétrolier <laughs> mais si xam xam nga loolu maanaam ñoom dañu bëgg euh, gëmloo Sénégalais yi que Ousmane Sonko dafa jaay Sénégal Ousmane Sonko dafa bëgg taal Sénégal encore une fois parce que c'est les mêmes mots qui reviennent lu ñu ko njëkk a jiiñ euh, Omar Ousmane Sonko li ñu ko njëkk a jiiñ mooy lan rebelle la waaw ah, mooy kii affaire Casamance bi nangam sangam lu ñu la jiiñ nañ ko fi accuser nañ ko force occulte financement des partis politiques là foog ñu wax ko foog ñu leeral ko de xaalis bi fa muy jógee mm-hmm. wallaay bu bu leeree ju yuuxu ji fu mu ko foogewul loolu nekk na lu nga xam ne ah. warul concerner Ousmane Sonko ah, rek mais warul concerner Ousmane Sonko ci Sénégal mais pourquoi Ousmane Sonko financement ana fan lay jógee lan moo tax Ousmane Sonko lan moo tax moom rek question bi ñu war a poser ñun ñii mais on en a marre mais dañu sonn ci loolu bu ñu xëyee war a wax ci mbay mi war a wax ci ndapp gi war a wax ci leneen mais bu ñu tegee dossier Ousmane Sonko ñaata dossier la ñu teg ci ndoddam jamono ji bëri na Adji moo indi compte max yaa ngi koy wax léegi Mame Mbaye Niang Mbaye Niang yaa ngi koy wax léegi je rappelle que boobu mi ngi cour suprême ba léegi mi ngi voilà mi ngi cour suprême ba léegi mais jóge guñ ci loolu ñu ne dañ koy atte tribunal bu Dakar le 12 mm-hmm. Matar Diop xëy di fële wax benn wax ñu gis Cheikh Yérim Seck plateau ma jambal ña plateau cette TV Diagne aussi wax na ci ñoom ñaar ñëpp mu toog wax ci kàddu day mel ni dañuy confirmer mu toog wax ci man man mel ni kuy confirmer hmm. ma jàmbal moom jàmbul dara jàmbul dara parce que aussi nit ki bu fekkee da ngay wane une certaine haine contre benn nit da nga dem ba dootoo crédible ma jàmbal ne plus crédible moo tax ma ne ma jàmbal jàmbul dara jàmbakatu daxaar yi laa leen tuddee ñi hmm. c'est des ay jàmbakatu daxaar lañ parce que tax parce que ñoom ñoom ñoom dafa mën ni benn mission la ñu am ay indicateur bi ñu bëgg atteindre mooy lan mooy fexe ba détruire Ousmane Sonko devant les Sénégalais ternir l'image de Ousmane Sonko dafa am loo xamante ne gis nga tey jii diabolisation bi ñu jëmale ci Ousmane Sonko yaa ngi koy wax sànq mais dama bëgg man déjà Matar Diop Ousmane Sonko am na ay avocat am na ñu koy teewal am na ñu koy layal te lii c'est pas la première fois ñu accusé ko Ousmane Sonko yàgg nañ ko wax nee naa la en lañ ko accusé na entreprise pétrolier dañu nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko. Mhm. ba ba cité ci Tulay Oil. mais léegi nag. Mhm. pour pour ñëw foofu ci sa question boobu ah. parce que dafa am dafa am loo xamante ne gis nga euh, ci jaborisation boobu euh, Seydina Omar. Mhm. Euh, dafa am ay médias yoo xamante ne tey jii. ils sont à la solde de l'Occident notamment de la France gis nga France 24 booy booy boo ko. canard enchaîné mooy kan ba ñu ne lu jógee ci canard enchaîné dafa def c'est crédible c'est pas vrai c'est faux nañ ñu may jàmb encore une fois seen diabolisation seen manipulation bii buñ ko moytul li ñu bëgg nañ ko am muy taal senegal te Sénégal mënuñ koo taal encore une fois mais yow l'argent xaalis bi ñu wax ne Ousmane Sonko jot na ko ci ci Qatar ñaata la. dafa bëri douze milliards. de francs CFA douze milliards de francs CFA. xel mën na ko nangu. man question bi may demande rek mooy xaalis boobu ana fan la jaar parce que loolu mënoo ko jaarale banque te du am benn fuite bu nga xam ne mën na ci am wala boog nga jaarale ko ci avion yi loolu day nekk lu nga xam ne du yomb man sama xel foofu rek la xaw a teeyee ci financement yi nga xam ne ñu ngi koy wax boobu ba léegi xam nga problème bi mooy ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dof ba pare jàppee sénégalais ay dof caaxaan baaxul lii ñu def ni ay caaxaan la yaa léegi yow yaa ko wax douze milliards ban banque lañ koy déposé dañ ko yor ci saak gàddu indil si Ousmane Sonko mais quand même un milliard sax tey jii wala huit cent millions sax boo ko dugalee ci banque mais banque bi def enquête. absolument na yenn somme yoo xamante ne boo ko dugalee ci banque banque bi def enquête kon moom Matar Diop député Matar Diop boobu. Mhm. na taxaw wax sénégalais yi. Mhm. fan la xaalis bi jaar. ba tegu ci loxo Ousmane Sonko. est-ce que loolu warul nekk responsabilité assemblée nationale bu Sénégal. waaw mu ubbi benn enquête parlementaire. absolument dès l'instant que kaddu yi bi mu koy wax moom assemblée nationale la taxaw waaye tamit procureur de la république ana lan nga koy xaar ci wax jooju. waaw mais dafa procureur dafa ko war a woo procureur. Mhm. dafa war a woo député bi parce que accusation yi kaay ma xamal benn affaire nag de bu fekkoon beneen kaa nga bokk saa yi bu kaa nga bokk. Mhm. maanaam bokk Hmm. jël accusation yi teg ko ci ko nekk pouvoir balaay ngoon ñu woo la. kon da nga jàpp ne dañoo làq doom dóor doom. waaye yow làq doom dóor doom fam fii ñu poñe doom kucceel doom rukk ko tëgg ko mbot wàqat ko nga naan ay làq doom dóor doom dañoo weesu loolu. Hmm. mais dama lay wax rek tey jii par exemple bu fekkoon keneen moo ko def wala ma tey jii ñu ne maas boobu moo taxaw nee na diw bu bokk ci pouvoir bi dafa am financement sàngam nàngam hmm. mais balaa balaa ngay génn fi gars yi woo la mais lii mu wax ni aussi dafa nekk d'une extrême gravité boo xamante ne maanaam bu ñu jël teg ko ci ndodd Ousmane Sonko ne ay financement yu jege Qatar waa Qatar d'abord déjà lii waa Qatar ñoo war a njëkk a waa Qatar ñoo war a njëkk a jóg. que sooy xool deux mille dix-neuf li ci wàllum li nga xam ne mooy. Actuel Oil. waaw ñoom dañoo génn démentir. démentir loolu bi nga xam ne ñu ngi leen koy accuser ne dañ koy financer Ousmane Sonko loolu dara amul. ils ont démenti ça en deux mille dix neuf. Mhm. dañ ko démentir. léegi nag ñu ñëw ba jamono jii pourquoi jamono jii ñu naan Ousmane Sonko dana bokk ak du bokk dana nangam du nangam un député du pouvoir di Matar Diop toog assemblée nationale jàkkaarloog les sénégalais ne leen jël accusation yu doy waar. yu yéeme teg ko ci Ousmane Sonko ne dafa parce que dafa tudd chiffre. 12 milliards. 12 milliards la tudd. waaw ah. que Sonko jot na ko comme financement pour lan pour lan mettre le chaos dans ce pays loolu ko bàyyi mu jàll. procureur tey jii. rôle mooy mu woo Matar boobu. Mhm. Qatar aussi war nañu jóg leeral wax wax lii. Mhm. parce que aussi xam nga gis nga li gën a ci àdduna mooy mag mu taxaw di sos di fen. di fen boo xëyee yaa ngi fen réew bi dafa mën a léegi euh, ci école de formation yi dafa mën dañ cee jàngal fen ak sos non mais c'est quand <laughs> te ay kilifa ñoo koy def mm-hmm. di gën a garaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man kazzaba falaysa minna loolu yonent bee ko wax man kazzaba falaysa minna képp kuy mm-hmm. fen bokkoo sama xeet ñu ne ko jullit dana njaaloo mën a mën na jum njaaloo dana naan mu ne mën na jum naan dana fen mu ne man kazzaba falaysa minna képp kuy fen bokkoo sama xeet. mais ci wàllum li nga xam ne di fen fen boobu ñu ci fen boobu. parce que dañoo fen fen fen fen fen fen fen bëggam seen fen. di graaw mag mu nit ku jaaxaan di saw. ne yaa ngi saw ki ki féetee kaw yow balaa kooku tooy yaa ngi ko tooy ndax li ngay wax yëpp day delluwaat ci kaw ci yow encore une fois dañu dem ba nit ñi boo bu ñu demee ba ñëw accuser ne Ousmane Sonko moo def nangam moo def sàngam xam nga yow li ñuy wax oh moo naa naa maar waaye dañu sonn ci li ñu waay saa yu ñu xëyee rek ut benn accusation ne waaye Ousmane Sonko moo ko def commencé wax te nag dañu yor stratégie parce que c'est pas n'importe qui moo jug accusé Ousmane Sonko jamono jii kii accusé Ousmane Sonko. député la député la. un représentant du peuple. un représentant du peuple soi-disant wala représentant du peuple. loolu la ñu wax kon je pense que assemblée nationale d'abord. mais waa waa waa Pastef am nañ fa ay député mhm. yooyu askan wi et les autres lu ñuy xaar ci jóg aussi parce que lii Matar wax je pense que bu doon keneen na ko wax du fanaan këram nañ ko woo laaj ko lii parce que Sénégal ku jëm ba ba wax alal bu ciy dugg pour déstabiliser ko je mhm. pense que loolu du ci ay caaxaan du ay détails yu ñu war a mën a jàpp mhm. loolu lu ñu war a mën a leeral procureur procureur ci boppam jóg leeral lii da déjà mu leer nañ parce que accusation yi as gor mais et puis man de est-ce que jàppoo ne fii ci Sénégal